Uras Info. Ribari Gao. Tewor. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. Django du Notre force. Le traitement de l'info. kooro gay moɗum gecc o haj ibrahim gay dg worogol mone de bune jotna ko tàmbali yeggali gëtë du ci coobarem naam donte ko ragal koor la waaye seytaane moo ko sonal wit démb xaw mu nekk ci yoon wa ne amoon nag ñaan o haj ibrahim gay mu dogooti delloo buum ca boy ga woorati moo ngi ci liggéey bi boole ko kilimaan nangaan bu tàng bi ànd ak loolu lépp dogu gi mu dogu mu fas yéene mottali kooram moo ngi jaabante bureau bureau journal bi ngi jàll moo ngi concentré wulu mat madame Keneme jóg ca technique ba di karaas karaas euh, directeur revue de presse bi pare na de bébé su paree di ko gis ci boîte wax naa leen ba sonn kii tey technique concentré wu ci li nga gis na ko jàllale bul ma meloo de o DG tàngoor we fa jaar madame Keneme comme ku dem jàmm ràcc ràccati na cëg bërëbam konti fee raj DG génnati ci bureau mel na du woon moom <laughs> Keneme ça va naka ma mbadam Keneme ne këj comme moom it koor gi jàpp na ko tax mu jàpp boppam DG firi boppam ma naka na xam nga li ma la xamal bugguma am coow man ak yow rus naa monsieur Keneme nag comme dama woor ah ndànk nga dem sa kër ba koor gi jeex <laughs> musaa gi o oh, DG moo ngi moyulu man ngir seytaane sudi ko ba modal kooram gi tey jile wàcc na ci suuf di xool ni gaañ toogee libaas yow moom Alfayda TV daa juddu rek nga fàtte Alfayda rajo yow ñaata yoon laa la wax ne sama machine bi nga ñëw xoolal ma ko sa chaise bi dafa jóg régie ba kañ soo programme lay daw ci télé bi kay say nekk ci leneen libaas DG lii moom mooy boole yow mënuma sant lii pareegu ma nga may wax leneen su ma ko deful nag nga ni libaas dafa tàng xol mais non o oh, DG xelam dellu waat na ne saa su ko seytaane di yoot rek mu yolleeku génnati na moo service ca frigo ba nga daal di jubali jël benn butéelu Evian indil DG mais directeur maa ngi gis yaa ngi wax ak xale yi rek ñi da ngay waaru quoi boo leen toppee da ngay def la bëggut a def sama maam dafa ma daan wax naan mer ci mandargay seytaane la ngir mer gi dañ ci yow nag am naanal nga ba mu sedd ndax xam naa ni sa xol bi tàngee boo dalul rek leneen mën naa xew <laughs> am naanal o oh, DG moo neexee yedd jël na kaasu ndox mi gëlëx gëlëxi naka moo naan ba noppi rek noa bi yaay rajo bi ah directeur <laughs> tey yow ooro tey yow naan mbedd o oh, DG tey ko xelama sori woon <laughs> boo xuma la lépp yow mi faal faal oh gain def naa erreur de comme duma war moo tax ma fàtte ne ñoo ci koor gi seet waaye yow ko nangu ga DG nga ni faal noo booy bee <laughs> Uras Info xibaar yi gaaw te wóor Uras Info à temps réel. URAS Info. Django du te notre force, le traitement de l'info.